ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الشعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيث كلما ألقي فيها فوج سألهم قدنتها ألم, تأتي ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم سحقا لأصحاب السعير وسحقا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 ñu gisoon ci xadiisu sayidna saaib ibnu yazid al ansaari radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne mu ngi nekkali ne ñaareelu nodd bi ci bisub àjjuma te moom mooy nodd bu njëkk bi ñuy njëkk a def laataa imaam bi di yéeg ci kaw mimbar bi loolu sayidna usman radiallahu taala anhu moo ko indi joxe ci ndigal ginnaaw bi nga xamante ne jamono ji nga xamante ne nit ñi dañoo bari woon ci jàkk ci jumaa ji waaye nodd gi nga xamante ne nag moom mooy nodd bi amoon laata loola te ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak jamono yu ñaari xulafaa yu njëkki radiallahu anhuma moom mooy ñi li nga xamante ne ñu eh, mooy eh, nodd googu mooy bi nga xamante ne imam bi day toog ci kaw mimbar bi boobu lañ daan nodd ñu gisoon tamit baabu ta'zin indal xutba bunt bi nga wax bi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne dañuy nodd maanaam bu ñuy waaju xutba maanaam ci jamono jooju la ñuy nodd ñu gisoon ci tamit xadiisu sayidna saib ibnu yazid boobu radiallahu anhu ba tey imaam al buxaari rahimahullahu taala indi waat ko ngir dëgëral lu mas amana maanaa boobu naka noonu indi woon nañ ci baabul xutbati alal mimbar te ci loolu bi ñu koy laata tàmbali lañu indi woon ci tënk li nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, shurut yi nga xamante ne moom lañ tegal euh, xutba buntu bi nga xamante ne moom mooy kon bunt bi moom mooy buntu bi ñu wax na dañuy xutba ci kaw mimbar mu ne wax na Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu maanaam xadis muallaq bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xataba nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala al mimbar yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutba na ci kaw mimbar bi naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne ñu ngi werante ana ban bant lañ defare woon li nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, euh, mimbaru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ne moom fekke na ko te fekke na jamono ji nga xamante ne ñu ngi ko doon soppi loolu tamit euh, mu daal di ci indi ak leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jigéen benn jigéen bu bokk ci waa am ansaar نكو موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها حين يتكلم الناس حين أتكلم وحين كلمت الناس ولا إذا كلمت الناس ما نم دوها الجم ما نم دقلن موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس manam digalal sa eh, eh, gone gi nga xamantene mom ab menuisier la bu ko defé mom mu daldi may defaral bant yo xamantene maanaam dama ci toog su may wax ak nit ñi maanaam su may xutba ci lay toog mën a xutba du wax ak nit ñi loolu euh, gisoon nañu ko euh, naka noonu léegi nag mu ñu war a gis euh, li nga xamante ne moom mooy xadis yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu ba tey ci biir bunt boobu muy bunt bi nga xamante ne day wax muy baabul xutbati alal mimbar bunt bi nga xam ne mooy wax ci xutba gi ñuy xutba ci kaw mimbar mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi lay xaddasanaa Saïd ibnu Abi Maryam te moom mooy al imaam Abu Muhammad al Jumhi Saïd ibnu a siiwee ci ibnu Abi Maryam al Jumhi rahimahullahu taala nga xamante ne waa Misra moom euh, Saïd mi ngi euh, gën a àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi àdduna deux vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi wa alihi wa sallam euh, moom ay xadisam imaam al buxaari solo na ci moom euh, ñeen fukki xadis waaye moom mooy imaam al buxaari moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam moom solo na ci moom 40 xadis euh, jotoon nañ ko gis nag lu dul benn du ñaar ci suñu xadis yi ñu jot a weesu imaamu muslim maanaam ñeneen ñi solo ci moom yépp ci waa kutubu sitta si ay seen sëriñu sëriñ la imaamu muslim solo na solool na ko ñaari xadis imaam Abu Daawud solol na ko ñeent imaam at-Tirmisi ñaar imaam an-Nasaa'i ñaar imaam Ibn Maaja euh, moom ñett la ko solol euh, sinon lu dul mos comme maanaam ci ay taalibeem bokk na ci ñi solo ci moom mooy euh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak al imaam Abu Bakr as-Saghani ak al imaam Ishaq al-Kawsaj nga xam ne mooy Ishaq ibn Mansour al-Kawsaj nga xam ne moom tam ci sëriñu imaam al-Bukhari yi la bokk ak ñeneen rahmatullahi على الجميع امام ابو حاتم الرازي امام يحيى ابن معين آه، يا امام يحيى ابن معين نك تاغ نكو ماغال كو لول نكا نون نيغا خامني نك نيوم لا سولو وي تي موم بوك نا تي موي كومال نافع ابن عمر الجمحي اك امام مالك ابن امام الليث ابن سعد اك امام سليمان ابن بلال اك محمد ابن جعفر ابن ابي كثير اك نينن رحم الله الجميع كون نينكو غيسيون موم اي حديثا كون نينغي كتب السته من قال حدثنا محمد ابن جعفر تمام الإمام محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مم جسون نيو ابن محمد ابن جعفر معنا نيار محمد ابن جعفر تي نيو بوكو تكي معنا مم خندر mooy al-Huzali ak keneen kii ñu gisoon ci jotaay yi weesu ak kii ni muy ñetti Muhammad ibnu Jaafar kii nag jotoon nañ ko gis al ansaari bi ñaar yoon bii mooy ñetteel bi euh, su fekkente ne juumuma ci ni mooy fàttaliku maanaam lii bi mooy ñetteel ñu koy gis rahimahullahu taala euh, moom mi ngi génn àdduna cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk maanaam mu am euh, soixantaine bi ci la amoon mom nak mok ñom ibnu Ulayya Ismaïl ibnu Ulayya Anas ibnu Iyad ak ñu mel ni ñom ñoom ñoo nek ay mas waye nak mom mo leen dik génn àdduna rahimahullahu taala mom tamit ay haditham ñi ngi ci kutubu sita mun qala akhbarana yahya yaxya ibnu said te moom al ansaari mooy abu said yaxya ibnu said ibnu qays ibnu amr ibnu sahl al ansaari an najjaari rahimahullahu taala di waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te moom lañu xam comme niñ ko xame moom lañu solowee suñu xadis bi njëkk bi moom moo ci saxiix bi maanaam moom euh, cent quarante troisième année wala cent quarante-quatrième ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ay xadisam ñi ngi ci moom mu ne qaala axbarani ibnu anas maanaam ibnu anas bi nag imaam albuxaari dana ko leeral ci suuf te moom mooy xafs ibnu ubaydullah ibnu anas maanaam moom nag moo tax ñu ku mel ne alkirmaani wala ibn xasm ñoom dañoo jàpp ne majhul la maanaam du koo xamante ne ku ñu xam la xaqiqatan moom comme imam al buxaari rahimahullahu taala leeral na ko fii maanaam boo gisee nag imam al buxaari buggul woon wax ibnu anas fële maanaam leerul xas ibnu ubaydullah ibnu anas bi foofu mooy ne dañoo soloo ci ay xadis yu wuute maanaam yenn yi dañoo solo ne ubaydullah ibnu xas ibnu anas maanaam ñu juut ñu jaawatle turam maanaam ci riwaaya bi comme nag dañoo jaawatle turam moom moo tax bëggul woon indi maanaam jaawatle boobu noonu moo tax mu ne rek ibnu anas moo tax ci suuf mu daal di indiwaat leeral ne xafs ibnu ubaydullah la tudd xaqiqatan mais tuddul ubaydullah ibnu xafs ibnu anas al ansaari moom waa basara la naka noonu euh, euh, moom euh, doo maanaam ma maam sët la ci sayyidina anas ibnu malik radiyallahu anhu moo tax ko ibnu anas maanaam xafs ibnu obaydullah ibnu anas ibnu malik imam maanaam sayyidina anas ibnu malik radiyallahu taala anhu moom mooy maamam moom nag du majjug maanaam du majhul maanaam beneen bi ci des mooy su loolu majhul sax xatta xam nañu turam waye bu fekkente na xamuñu histoire am itam liñu mëna mën a dogu mooy ne yahya ibn Saïd al Ansari comme mo solo ci mom da dafa am ño xamante ne ñoom du ñu lu dul ci ñu wér yahya ibn Saïd al Ansari ko ci la bok yahya ibn Saïd al Ansari ku melni imam Malik ibn Anas ku melni sufyan ibn ibnu Saïd al Thawri ku melni mansur ibn Mu'tamir ak ñu melni ñom ñom duñu solo wé sufyan ibn sufyan al Thawri ñoñu duñu solo soloo lu dul ci ko Shu'ba ibn al Hajjaj manam ñooñu kuñu solo ci mom rek. koku ku wer la loolu eh, te kon bu boba ci lañu mëna dogo ci ne ku wer la annahu naka mom kat sami'a na jabir ibn abdullah te mom moy al ansari jabir ibn abdullah ibnu haram eh, ibn amr ibn haram nan al ansari radiyallahu taala anhuma amu abu abdullah ya abu Abdurrahman wala abu muhammad eh, radiyallahu taala anhu mu sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doomi sahaba radiyallahu taala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamante gisoon nañ ko dul benn du ñaar mi ngi génne àdduna fukki ak juróom-benn laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama musnadam maa bokk ci musti muktiruuna yi 1540 xadis moom mooy euh, musnadam euh, imaam al Buxaari imaam muslim dëppoo nañ ci juróom fukk ak juróom-ñett imaam al Buxaari wéetoo ci ñaar fukk juróom-benn imaam at-Tirmidhi wéetoo ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay xadis ci xadis sayyidina eh, Jaabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee kaana nekkoon na jiz'un ak dàtt boo xam ne yaquumu da daan taxaw ilayi ci moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam dàtt boobu nga xamante ne moom mooy mooy dàtt tàndarma ci la taxaw moom mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ngir xutba maanaam euh, nga xam ne ci la daan taxaw fa lamma ba nga xam te ne wudia moom la ñu def tegal la ko ñeel ko al mimbaru bi mooy mimbar bi ñu gisoon ci xadis bi ñu weesu euh, muy xadis sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi bi radiyallahu taala anhu maanaam gis ne euh, date bi boo xoolee kon jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay cari tàndarma moo nekk ci kaw date tàndarma lañ tegoon ci kawam ay cari tàndarma lañ tegoon moo maanaam téeg bi lool la woon mooy plafond bi soo xoolee ba noppi li nga xamante ne moom mooy fi mu daan taxaw di xutba fu mu njëkk a taxaw mooy mimbar boobu tamit tàndarma la te garabu tàndarma googu waxoon nañ ko yenente bi sallallahu moom la melale woon jullit bi ci xadiis sayidna abdullah ibnu omar ba radiallahu taala anhu bu fekkente ne fàttaliku nañ ko moom bañ ko ko tegalee nee na euh, mu ne ba mu ci la ñu déggee lil gise ñeel dàtt wa mis la kemuk aswaatil ishaar maanaam kaddu yi euh, gëléem yi nga xamante ne maanaam al ishaar maanaam mooy gëléem yoo xamante ne dañ ko dañoo ëmb ba am fukki at fukki fukki weer maanaam gëléem bu ëmbee ba toll ci fukki weer moom lañ koy tuddee euh, euh, ashra maanaam pluriel bi mooy ishaar maanaam moom boobaa comme ni alquran wax wa idal te la maanaam moom lay wax noonu maanaam ngir ne loolu alal bu bëree bari la bu fekkente ne gëléem yi noonu ñu bëri ñu mel noonu maanaam ëmb ba yegg foofu loolu moom boo ko boo ci amee ñett rek maanaam c'est bon nga maanaam na la leer ni euh, maanaam coonooy dépense moom wàcc na la bu fekkente ne xam nga ni nga koy toppatoowee mu ne euh, ndax ak euh, te te loolu moom moo tax maanaam nga gis mu digg loolu day tegtale ne maanaam ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñun ñi ñu gis ñu jàpp ne amuñu kàddu xaqiqatan am nañ kàddu comme ni borom bi subhaanahu wa taala ne ñoom dañuy sàbbaal guddi ak bëccëg ci borom bi subhaanahu wa taala waaye yéen mu ne wala laakin laa tafqahuuna tasbihahum maanaam amul lenn lu dul ne mi ngi sàbbaal borom subhaanahu wa ci di ko sant waaye yéen yéen a xamul yéen a dul dégg nagam moom mooy ni nga xamante ne moom mooy seen sàbbaal naka loolu comme ni alquran wax ni ñoom ñëpp dañuy julli di sàbbaal kullun qad alima salaatahu wa tasbiha képp kenn ci ñoom am na xam na na muy jullee ak na muy sàbbaale na muy jullee borom bi subhaanahu wa waaye na muy jullee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa ak na muy sàbbaale boromam subhaanahu wa taala ak ni muy sàbbaale li nga xamante ne moom mooy xaqiqa bi nga xam ne moom mooy tu borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne moo feeñ ci yeneen bi sallallahu alayhi wa te loolu moom mooy mbépp mbir ci existence bi ci lépp day sàbbal Euh, borom bi subhaanahu wa taala day julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu ko dul def waaye nag nag noonu dañuy duñu yamuñu ci loolu te loolu lii day tegtale ne loolu noonu maanaam xaqiqatan lañ koy def maanaam dañ koy def ci ni mu nekkee ci dëgg-dëgg nit ñi nag bu la borom bi subhaanahu wa taala yëgitiwul kiiraay bi dox ci diggante maanaam nga dégg ko wala nga mën ko gis wala nga xam ko bu boobaa doo ko xam waaye nag bu borom bi subhaanahu wa taala yëgitee bi rek nga xam ko كملي كأن كي ولي إمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه من دما جل بن كاس ما تكو مني مو كتكي دفع فورم ما تكو تك رك من أي ما نام بيمو ديجي لور رك كلان من دبي جور بوب ما نام ماتريال ما نام مير منك دما يدخل على أمم أجير مني كي أنا مو خامن تاني دمو كتك تجين بديجر دخمنا نمن نمت ما نام من دبي جور بوب نون لا يدخل عليه te ku mel ni am na euh, ak yeneen ak yeneen ak sañu yu noonu ku mel ne Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mu ngi ciy nettali ne dafa dem ci wanag wi dégg wanag wi ni muy sàbbaale borom bi subhaanahu wa maanaam euh, ñi ci mu mu mu bañ a mu ne mu ne naa téye mu téye boppam maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam yuy leeral maanaam ne mbir mi xaqiqa la boo xamante ne bu am am la te yemuñu ci loolu waaye ñoom ñëpp dañoo bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel koo xam te ne dafa jéggi dayoo waaye nag yelloo na moos ci datt maanaam kàndarma muy garab gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa tuddee ci alquran ne shajaratan tayyiba la alam tara anna allaha alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin asluha saabitun wa faruha fi sama maanaam nga gis ni garab googu la melale ne garab la goo xamante ne gu sell la ba pare melale baatu laa ilaha illallah maanaam muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme garab googu moo tax datt garab googu nag maanaam bu fekkente ne yéen moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ko maanaam def ko mimbaram di ci taxaw loolu yelloo na wallahu alam mu ne xattaa mbete maanaam bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yéeg ci kaw dàtt boobu beneen mbir bi tamit dafay euh, mu ne mu ne xattaa mbete nasala mu wàcc annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wadaa mu daal di teg yadahoo loxoom alayhi ci moom maanaam mu daal di fasak maanaam moo ci mu ne maanaam a noppi maanaam ni ko da nga bëgg comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weeso da nga bëgg ngir ma yëkkati la yóbbu la maanaam ma ma ma ma ma jëlaat la di taxaw ci yow wala boo bëggee ma bàyyi la mais ma boole la ci garab yi nga xamante ne ñoom ñooy garab yi ak àjjana yi mu ne ko yóbbu ma foofu maanaam boole ma ci garabu àjjana yi loolu day tegtale ne ñoom dañoo am kàddu te loolu day wuuteeg li nga xamante ne euh, moom la xadari yi jàpp maanaam euh, mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne yii mbir yi mun mënuñoo wax maanaam amuñu kàddu et que ku amul làmmen mënta am kàddu maanaam loolu moom moo tax ñoom loolu lañ jàpp noonu lañ ko jàppee te loolu nag mbir mi demewut noonu ndax bu fekkoon te ne loolu la kon garab gii du demee nii maanaam loolu tamit day tegte la ne mbooleem lu am day seede màggaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii moo tax gis gis euh, euh, bi maanaam dàtt bi nga xamante ne da doon yuuxu jooy di onku maanaam lii dafa bokk ci kiimtaan yu mag yi bi sallallahu alayhi wa mu bokk ci mujizaam yi wane ni dëgg dëgg ku yàlla yónni la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy ibna bilal muy mbokk ñoom imaamu malik di daan ah waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu abu muhammad abu dañ al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu taala moom mi ngi gane àdduna 93 jàpp 94e année muy at bi ñoom imam Malik ñoom moom Layth ibn Sa'd ñoom rahmatullahi alayhi jami ñoom gane àdduna te ci la at boobu ci la boroom xam-xam yu bëri ma dina génn àdduna moom ci la gane àdduna génn àdduna 177e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi kon moom imam Layth ibn Sa'd ñaari at la ko jiitoo moom mu jiitoo imam Malik ñaari at maanaam ñoom Ah ñu nekk ay imam yu mag nag nekkoon biir Madina nekkoon ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Yaxya te moom al imam ibnu Saïd al ansaari bi ñu tudd léegi rahimahullahu taala mu ne annahu qaala axbarani Hafs ibnu Ubaydillah ibnu Anas maanaam te Souleymane ibnu Bilal ci siqaat yu mag yi la bokk maanaam kon loolu muy dëgëral ne maanaam li nga xamante ne moom la moo tax imam al indiwaat lii ngir leeral ne ibnu anas bi kii la maam te noonu la tudd mu ne annahu nag moom sami samia dégg na jaabir ibnu abdullah ci mooy al ansaari radiallahu taala maanaam moom nag xas ibnu ubaydullah ibnu anas maanaam bëriwul ci ñu mu dégg ñu mu maanaam bëriwul ay xadis yu mu solo radiallahu taala anhu anil jamii xadis bi imam al buxaari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 3584 ak 3585 imaamu uh, maanaam dafa bokk tamit ci xadis yi nga xam ne imaam al buxaari da ko walif imaamu muslim rahimahullahu taala imaam an-nasaa'i indi na ko xadis numéro 1396 imaam ibnu maaja indi na ko xadis numéro 1417 imam ahmad ibn hanbal na ko xadis numéro 14119 14142 14206 14282 14468 maanaam kon dañuy gis ne waa saxaabu kutubu sitta ñett rek ko ci indi muy imam buxaari imam nasaay imam ibn maaja muslim abu abu daawuda ak imam at yi ñoom solo wuñu ko rahimallahu al jamii هنا قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا آدم ابن أبي إياس البصري رحمه الله الخرخراساني آه، العسقلاني رحمه الله تعالى منك بغدادي آه، جناوي رحمه الله أبو الحسن al as euh, euh, euh, al asqal al marwazi al al asqalaani maanaam moom mi ngi génn àdduna 220e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imaam al Buxaari imaam Tirmisi imaam Nasaa'i imaam Ibn Maaja sahih maam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta bam des ci sahih imaam Muslim ak imaam Abu Daawuud rahmatullahi alayhima mu ne qaala haddasanaa ibnu Abi Dhi'b te moom mooy Muhammad ibnu Abdurrahmaan ibnu al-Mughiira ibnu al-Haaris ibnu Abi maanaam moom la ñuy wax maanaam moo tax maam maamam lañ ko dàqantalee nag ibnu abi zi bu mais abu zi bu boobu moom hisham la tuddoon mm-hmm. euh, muy hisham ibnu shobata ibnu abdullah ibnu abi qays euh, dégg nga al euh, al amiri al maxzumi rahimahullahu taala muy abul xaaris almadani moom waa madinatul munawwara la gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta moom ak ñoom imam Maalik tam ñoo nekkandoo woon madina maanaam mooy ñi ma doon tuddal léegi ñoom ñii tamit moom ñii ci groupe boobu la bokk sauf que moom moo leen mag tuuti moo leen jëkk tamit génn àdduna moom ani Zuhri muy imam mohammed ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri abou Bakar di wa Madina gane adna cinquantième e ane gane adna 125e ane ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an Salim te muy benn ci wax ñi ci kenn ci fuqaha as ci ñetteelu wax ci maanaam ci ñetti benn ci ñetti wax yi kan mooy juróom-ñaareel bi mooy Seydina Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum moom Abu Umar Abu Abdullah wala Abu Ubaydillah Ahmad al-Madani moom mi ngi génn àdduna san cinquième wala cent septième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa moom bi boroom xam-xam madina yi di génn àdduna génnut àdduna toogaat na fi daanaka maanaam toogaat na fi fukki at ak nangam maanaam doog a génn àdduna seen ginnaaw maanaam dégg nga ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an abihi muy bàyyam sayyidina abdullah ibn omar ibnu Xattaab ibnu Nufay ibnu Abdul Uzza ibnu Rayaa ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razaa ibnu Adi ibnu Kaab maanaam muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci Kaab boobee muy Seydina muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di Makki maanaam nekkoon waa Makka gannaaw nga tam mu dëkkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi gane àdduna Euh, euh, maanaam euh, ginnaaw gàddaay ginnaaw bi ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam benn at ginnaaw ba ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy fukki at ak ñaar laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi maanaam juróom-ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu wa alihi wasallam ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom it ci muksiruna yi la bokk 2630 xadis moom mooy musnadam imam Buxaari imam Muslim dëppoo nañ ci 168 xadis imam Buxaari wéetoo ci 81 xadis imam Muslim wéetoo ci 31 xadis ci xadis Seydina Anas Seydina Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa annabiyya yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu muy xutba alal mimbari ci kaw mimbar bi maanaam kon lii day dëgëral ne bu ñuy maanaam kii xutba day xutba laan ci kaw mimbar bi comme ni nga xam ne noonu la ko waxee am amaa xadis bi ñu weesu ni mu koy tegtale mooy ne dañu koo tabaxalal maam dañ dafa dafa dañ dafa nekkoon ci dàtt ci kaw dàtt tàndano la daan taxaw gannaaw ga ñu tegal ko mimbar mu taxaw mu di ci taxaw kon loolu moom moo koy tegtale fii tamit lii tamit maanaam expression bi moo koy tegtale fa qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa ne man képp koo xam ne jaa aday dikk ilal jumaat ci àjjuma fal yaxtasil na sangu maanaam kon na sangu cangaayal farata loolu maanaam dañ ci wane ne maanaam sopp gi nga xamante ne moom la ñu sopp ak feddaliku yi nga xam ne moom la feddaliku ne kuy ñëw àjjuma na sangu cangaayal farata bokk na ci tamit liñ ci xamee mooy nii contenu wu xutba bi daf manam bëgg nañ mu amala ci moy ay digle loo xamante day digal nit ñi ci lo xamante lu baax la lu jëm ci seen walu diiné lay doon wayé manam ñëw du début à la fin tout le temps manam khutba bi yëpp waxtaane politique lay doon wala mondialisation yooyu vraiment mom bokul ci li nga xamante mom moy mooy li jaadu wallahu a'lam hadith bi eh, imam al imaamu Malik solo na hadith numéro 270 ak 293 Eh, imaam al Buxaari indi na ko xadis numéro 877 ah indi woon na ko ak xadis numéro 894 fii lay ko mujjee gis xadis bi dootuñu ko gisati moom tamit romb nañ ko jeex na imaamu ah, Muslim indi na ko ñaari yoon xadis eh, imaam ah, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 492 imaam an-Nasaa'i xadis numéro 1376 1405 1406 ak 1407 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1088 Euh, kon dinañ gis ne imam euh, ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon waa asxaabu du sitta ñoom ñëpp solo nañ xadis ba mu des imam abu daawud as-sijistaani rahimahullahu al mu daal di ne nag léegi baabul mu indi beneen bunt nag léegi ginnaaw bi mu waxee ci wàllu xutba ci kaw mimbar bi léegi muy indi nag beneen bunt ci wàllu xutba ba tey ak mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo mu ne baabul xutbati qaa'ima baabu buntu al xutbati ni xutba bi buñ koy def imam bi bu koy def qaa'iman day aji tax day dekk aji taxaw maanaam loolu euh, moom mooy Euh, di leeral ne maanaam imam bi bu waree xutba dafa war a xutba mu nekk koo xamante ne day taxaw loolu nag boroom xam-xam yépp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci sopp gi nga xamante ne moom lañ ko sopp ak yoonal gi nga xamante ne moom lañu ko yoonal euh, beneen bi ci des moom mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag wuute nañ ci ndax maanaam bu fekkente ne nit ki taxaw na xutbaam euh, wér na maanaam bu fekkente ne dafa toog wala mu tëdd maanaam ndax xutbaam dana wér waaw wala déet borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur ulama ci sha ci xanafi yi ak maaliki yi euh, ak mbooloo bokk ci maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne xutba maanaam toog maanaam xutba toog maanaam du yàq xutba gi waaye nag nekk na loo xamante ne rawatina tëdd maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, lu ñu ŋàññ lool lay doon ci koo xamante ne amul ngànt maanaam <laughs> daanaka sax day daal di xaw a xoromu comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam xutba euh, li nga xam ne moom lay daal di bi jaadu mooy maanaam da taxaw comme ni nga xamante ne noonu la mboolem borom xam-xam yi waxee rahmatullah alayhim amma li nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha o xanaf yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne xutba dañ maanaam boo koy def da ngaa war a taxaw maanaam euh, te loolu charte la ci maanaam ngir xutba gi mën a baax. ci ñoom naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy astafurlah shafii yi laa bëgg a wax mhm. yi dañ ko dafa nekk farata ci ñoom am amma fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñaari wax lañ ci wax benn wax bi moom mooy ne dafa nekk lu war beneen bi ci des moom mooy ne euh, dafa nekk loo xam ne sunna la euh, te ñaari wax yépp lu ñuy jëfe la ak yu ñu xam la ci biir mazhab bi waaye euh, maanaam ñàkk gaa yàq moom mooy li gën a lëngi ci ñoom maanaam mooy ne xutba bi boo taxawee du ko yàq maanaam boo boo boo taxawul du yàq xutba bi dégg nga am maa li nga xamante ne nag moom mooy xanaf yi rahmatullahi alayhim ñoom bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy laye moom mooy li nga xam ne moom la eh, ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutbaam man shafii yi laa bëgg wax moom da ngay xam ne shafii yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom dañuy wax ne ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay xutba ba pare taxaw comme ni ko alquran waxe wa tarakuka qaima maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidna Kaab ibn Ujra radiyallahu taala anhu wax bi mu duggee ci euh, euh, jumaa ji fekk euh, Abdurrahman ibn Abil Hakam doon nodd doon doon xutba waaye bi muy xutba dafa toog mu daan ne mu daal di yéemu ci mbir mi ne naka la mën a defee nii maanaam di xutba nii te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa tarakuka qaa'ima manam te hadith la bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mune mangi wat yàlla ne mangi do doo gis lii am tamit hadith bu ñuy nek bu ñuy sukkandiko bu nek ci sahih imam muslim batay bu sirna jabir ibn samura radiyallahu taala mune man dama gis yeen mune mune toxawu di khutba moy li mën a ne maanaam toog di khutba defu ko def te dayer mune mune dafa ni taxaw di khutba de la gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la doon def te Euh, julli naa ci ginnaawam lu tollook ñaari junni yoon te mosuma ko gis mu taxaw toog lu taxaw mais loolu nag boroom xam-xam maanaam mbir mi dëgg-dëgg li muy firi imam an-Nawawi dafa jàpp ne na julli juróom yi ci la bokk waaye boo xoolee li tax maanaam dafa ñëw ci imam bi di xutba toog mu ne imam bi xutba day toog day man de musuma gis lii yenent bi sallallahu julli naa ci ginnaawam ñaari junni yoon te musuma ko gis mu ta mu jullit mu xutba taxaw maanaam loolu siyaaq bi mooy wane ne li mu ci namm mooy julli ajjuma waaye nag mu baalaga rek la ci jublu ngir ne loolu pour mu mën a nekk il foog mu am ñeent fukki at ak lu teg maanaam te loolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam julliwul lu tollu noonu maanaam kon lool mooy wane ne maanaam li mu ci jublu rek mooy mu baalaga dégg maanaam mooy muy ne rek wax ne ah voilà maanaam lu bëree bëri laa laa julli ci maanaam li muy tekki mooy julli naa ak yenent bi sallallahu lu baree bare te mësuma ko gis lu dul mu julli taxaw te loolu nag moo tax fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhi jàpp ne loolu kon farata la ci xutba maanaam moo tax bu amul julli sur xutba bi du baax waaye nag li nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ahan kay julli toog mën naa ne te loolu bokk na ci li koy dëgëral mooy lu dul benn ñaar ci ay sahaaba radiyallahu anhum dëgëral nañ ak mën a nekkam te dëgg dikk jële nañ ko sax ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam te bokku na ci hadith biñu rombon mo hadith sayyidina salim Saalu sa'idi bi radiyallahu taala anhu bi ñu ak hadith sayyidina Abu Saïd khudri bi nara gisi ji legi insha allah taala amma hadith sayyidina salim ibnu sa'idi bi radiyallahu taala anhu mom moy bi ne muri xulaamaka najjar an ya'mala li ahwaadan ajlisu alayhinna idha kallamtu nas manam Euh, waxal sa gone bi nga xamante ne menuisier la mu dafa tabaxal mu defaral ma ay bant maanaam mooy mimbar boo xamante ne dama ciy toog bu may wax ak nit ñi maanaam kon nga gis ne xutba toog gi mën naa ne amma beneen xadis sayidna euh, euh, abdullahi sayidna abu said al-xudri bi radiallahu taala moom ñi ngi ci ñëw ci kanam insha allahu ginnaaw maanaam ñaa ginnaaw xadis bi ñuy bi ñu war a dugg maanaam ci bunt bii bii ci bunt bii di ñëw insha allahu taala kon lii day dëgëral euh, ne jumhur li ñu wax loolu mën naa ne amma baat bi nga xam ne moom la alquran wax ne wa tarakuka qaa'ima maanaam ne bàyyi nañ la maanaam euh, euh, maanaam ñu ngi la fiy bàyyi fekk yow yaa ngi taxaw ba comme bi alquran wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaa'ima maanaam loolu dama fekk ne xaal bi la nekkee woon rek loolu lay lekk tegtale maanaam tegtalewul ne faw xutba foog nga taxaw hmm. waaye nag li nga xamante ne moom mooy li al imam ibnul munzir wax rahimahullah mooy ne xamul boroom xam bu wuute ci ne taxaw xutba moo gën am maay imam ibnu xasm li mu soloo ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom mooy ci njëkk a xutba toog et que euh, loolu dafa nekk loo xamante ne comme li imam ash-Sha'bi tamit wax ko maanaam ci ni mu ko taxal mu yokk ko ci wax ji mais Euh, dafa fekk dafa amoon yaram loolu moom moo tax loolu euh, xaqiqatan euh, da dese na wér li wér mooy ne yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam xutba na taw te li koy tegtale mooy xadis yi nga xamante ne moom mooy bii wallahu a maanaam yi ñu jot a tudd léegi wallahu waaye nag xutba taxaw mooy sunna amaan na xutba toog gi da doon tegtale rek ne maanaam mën naa ne te loolu bu boobaa day daal dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama رحم الله الجميع هنا قال بالإسناد المنتصر في أول كتاب الإحدثنا عبيد الله ابن عمر القواري ري تأمموي الإمام موي إمام بو مقبوب وغامنتني وبغداد لا دي بور أبو سعيد الجشمي البصري القواري ري رحمه الله تعالى موم ميغي غاني ادنا 152 ane année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wasalaam mu déggee ci imaamu waa basara yi jamono jooju muy ku mel ni imaam Hamad ibnu Zayd Abdul Waaris eh, ku mel ni Jaafar ibnu Suleymaan Abdul Waahid ibnu Ziyaad ak imaam Gundar Muhammad ibnu eh, Jaafar al-Huzali ku mel ni Fudayl al imaam Fudayl ibnu Iyaad mu màgg boobu mooy nitu yàlla bu sell boobu ak imaam Abu Awaana Waddaah ibnu Abdullah al-Yashkuri ak ku mel ni Rayhaanatul Basara Yazid ibnu Zurayya ak ku mel ni Sufyaan ibnu Uyayna ak ñeneen ak ak Hushaym ibnu Bashir al-Wasiti ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahimallahu al-jamii moom nak noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo nag ci moom mu imaam al-Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawuda maanaam ñoom ñetti ñi ñoo soloo ci moom ci waa kutubu sitta moo tax ay xadiisam maanaam ci ñett ñi nga koy fekk ci kutubu sitta um, imam Abu Zurat ar-Razi ak imam Ibrahim al-Harabi ak ñeneen ndax rahmatullah al-jamii nañu ci moom mi ngi génn àdduna fukkeelu fan ak ñaar ci wéru zul hijja 235e année gadda yenen te bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee ay haditham ah, imam bukhari imaam Muslim imam Abu Dawud imam an nasai rek ñom ñoko ko solo maanaam imaam an nasai solo na haditham waye ñet ñi ñom ñoo ñi nga ñom ñoo ñom ñoo solo ci mom rahmatullahi ala al jami' mu qala qala qaala خالد ابن الحارث مم أبو أبو عثمان خالد بن الحارث بن عبيد ابن سليمان البصري رحمه الله آه، مي آه، آه، أبو عثمان البصري رحمه الله تعالى ممن جن أرض سامين تمانة جن أرض سان كتبين سيزي مانة جن أو كتاب ينتمي صلى الله عليه وسلم سوسم سيزان لدمه رحمه الله تعالى مم أي حديث من يجوك تبص تمنا قال حدثنا عبيد الله ابن عمر تمام ال Omar yi Ubaydullah ibn Omar ibn Hafs ibn Asim ibn Omar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullah taala mooy Abu Osman tamit la mooy dàkkante la mooy muy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Naafi muy mawla Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma radiyallahu taala anhum mooy Abu Abdullah moom tamit al-Qurashi al-Madani moom mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an ibn Umar mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab tudd nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu daan xutba qaa'iman di aji taxaw summa topp yaquudu mu toog summa topp yaquumu mu taxaw kama taf'aluuna comme ni ngeen di def al-aana léegi comme ni ngeen di def nii loolu la yonent bi daan def sallallahu alayhi wa maanaam ngi gis xutba bi bu imaam bi ñëwee toog daal di taxaw xutba maanaam ñu noddal ko mu jóg taxaw xutba bu xutba ba pare toog xutba waat taxaw maanaam bu toogee toog goo xamante ne maanaam maanaam euh, day taxaw toog toogaayu dal rek hmm. maanaam loo xamante ne euh, day tolloog comme kuy def tomaan yi na ci maanaam comme ruk nit ki bu rukkooyee wala mu sujjóot diir bi mu fay def maanaam toog bu toolu noonu lay doon maanaam bu ko defee mu daal di jógaat su jógaatee eh, daal di yeggale li nga xamante ne moom mooy daal di defaat beneen xutba ah mu dégg nga noonu la daan def eh, su paree mu daal di dem nodd comme maanaam mu ñu daal di koy lëqaamal bokk mu daal di julli comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon am naa teqatal tamit gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu Euh, walillahi alhamdu wal minna ne teqal toq teqantal googu daf cee jaadu maanaam ñaari xutba moom mooy li jaadu amma ñi nga xamante ne ñoom la xanaf yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne benn xutba bi rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku dégg nga waaye comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee loolu day tegtale ne maanaam xutba taxaw loolu mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te sayyidna abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu taala anhuma moom noonu la ko toxale te loolu lu dul benn du ñaar ci ay saxaaba radiyallahu anhum doxal nañ ko boo yonent bi sallallahu alayhi wa di xutba taxaw waaye lii day tegtale mais nag am naa xadis boo xamante ne euh, day ñëw directement yonent bi sallallahu alayhi ne maanaam boo leen dee xutba na ngeen taxaw loolu amul xadis boo xamante ne bu wér la bu ci wax maanaam loolu moom tamit bokk na ci li tax li indi wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wuute ci yooyu masala rahimallahu jamii imaam al-Bukhari sunu xadis bi fii rek la ko indi dootu ko indiwaat imaamu muslim benn yoon la ko indi moom tamit muy xadis numéro 861 imaam an-Nasaa'i tamit benn yoon la ko indi mooy xadis numéro 1416. te ñoom rek ñoo ko indi ci waa kutubu sitta imaam al buxaari imaam muslim imaam an-nasaa'i ñoom ñii rek ko indi te kenn ku ci nekk bu ko indee benn yoon koy indi dootu ko indiwaat naka noonu euh, kon niñ ko gisee euh, imaam abu daawud ak imaam at-tirmidhi ak imaam ibn maaja ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu yastaqbilu maanaam lii moom mooy buntu bi nga xamantene riwaya bi riwaayat karima la karima bint ahmad al marwaziya rahmatullah alayha manam mom mo amé riwaya babu yastaqbilul imam al qawm waye ñi nga xamantene mom moy ñeneen ñi ci dess ñu solo saxee manam ñom babu istiqbalul imam al qawm la maanaam baabu istiqbaalil imaam la ak ak wastiqbaalin naasil imaam dégg nga baabu istiqbaal imaam maanaam kon yastaqbilu dana dana dëgmal al imaam imaam bi al qawm nit ñi maanaam ah, imaam bi maanaam buy julli buy buy xutba tamit day wax nan lay demee maanaam xutba gi imaam bi bu taxawee day jàkkaarloo ak yéen ak yeneen nit ñi waaye tamit wastiqbaali am amma nit ñi tamit dañuy jàkkaarloo al imaama imaam bi idaa xataba xutba maanaam mooy ne imaam bi du xutba ñenn ñi war ko ginnaaw wala yu mel noonu loolu du demee noonu maanaam ni muy demee mooy imaam bi bu taxawee di xutba day jàkkaarloo nit ñi waaye nit ñi tamit dañuy jàkkaarloo moom loolu tamit euh, ñu ko gis ci xadisu Seydina Abu Saïd euh, al-Xudri bi radiyallahu taala anhu mais même ñi nga xamante ne masalan tey bu fekkee imaam bi dafa taxaw maanaam mi mbari mi nii sàpp bu njëkk bi wala bi ci tegu wala yeneen yi des maanaam nekk yu gudd lool suñu guddee bu boobaa day daal di euh, jaadu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci cat bële. xam nga bu guddee sàpp bi bu guddee lool mhm. imaam bi taxawee ni maanaam ñoom bu ñu jubloo xibla ñoom du ñu jàkkaarloog imaam bi mhm. bu boobaa ñoom dañuy wëlbatiku jàkkaarloog imaam bi maanaam loolu mooy sunna mhm. loolu maanaam loolu moom lay moom la war a moo tax mu ne mu ne imaam bi tamit day jàkkaarloog nit am maa di xutba euh, di tourner di wëlbatiku nii maanaam euh, loolu tamit dafa nekk loo xamante ne Eh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute fuqaha u jumhurul ulama rahmatullah alayhim nag dagal nañ ko waaye mu am ci ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu jaaduwul ñoo te loolu lii wa waaye nag mën naa ne lii wane ne mën naa nekk moom mooy ne lu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum man sayyidina naa ibn Mas'ud sayyidina Abu Hurayra sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhu jame eh, ñoom sayyidina Jaabir am ñu bëree bëri radiyallahu anhum maanaam sol ñoom ñëpp dañuy ne dañu julli euh, jàkkaarloog yenn maanaam dañ doon euh, neen yent bi sallallahu alayhi wasallam lay xutba waaye wëlbatiku maanaam toxal nañ ci moom mu wëlbatiku jàkkaarloog yeneen nit ñi maanaam mooy mbooloo mi bari du taxaw rek nii jàkk nii rek tout le temps tout temps maanaam day wëlbatiku léeg-léeg mu wax ak ñii léeg-léeg mu wëlbatiku wax ak ñee loolu dagan gi mu dagan ak mën a nekk gi mu mën a nekk ñom ñi toxal nam ko ak ñeneen rahim radiyallahu taala anil jami manam mu ne euh, kon wastaqbala manam jakarlo na deggmal na jublu na jakarlo ibnu umar sayyidna abdullah ibn umar no khattab moy moy ci hadith bu imam bayhaqi sama rahmatullah wa anas ibnu anas ibn malik radiyallahu anhu moom euh, al imam ak imam bi manam ñom manam dañoo togon yoroon seen toogaay bi imaam bi ñëwee ñu daal di wëlbatiku jàkkaarloo moom nag ngir mën a diglu xutba bi maanaam kon loolu lay tegtale maanaam ne kon imaam bi eh, maanaam ñoo ñoom dañu jàkkaarloo ak imaam bi kon ñoom ñi eh, dañoo jàkkaarloo ak eh, imaam bi te loolu maanaam mooy sunna من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا معاذ بن فضالة تيمم أبو زيد معاذ بن فضالة الزهراني أدنى مي تمت وبصرة وحنا ومصر رحم رحمه الله تعالى من جن أدنى دوس عن أنا جن وقد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم إمام البخاري رك مم وصلى حديثم تسعى بنعرف أجرم نعرف حديث لجسلا رم لنكنك لبري Euh, jot nañ ci romb yi yéen maanaam lu xaw a takku euh, dégg nga moom kon xadisam ci saxal mbaal Buxaari rek la nekk ah, rahimahullahu taala te ñaar fukki xadis juróom-ñaar rek la ci am mun a qaala xaddasana euh, Hisham te moom mooy Aboubacar Hisham ibn Sumbur ad-Dastawaa'i rahimahullahu taala moom mi ngi gane àdduna 66e année génn àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi muy بإمام وبصر رحمه الله تعالى حديث النبي كتب الستة عن يحيى تمام الإمام أبو نصر ولا أبو كثير يحيى ابن كثير ابن المتوكل ابن المتوكل البصري رحمه الله تعالى إمام وبصر جن أرض صاحب النبي أنا جن أقعد ينتبه صلى الله عليه وسلم عن هلال ابن أبي ميمونة أنت آه، آه، هلال ابن علي ابن أسامة gën a siiwee ci ibnu abi maymuna rahimahullahu taala moom maanaam moom lañ muy waa madina mu alfihir alaamiri nekk waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génnaat téeméeri at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam nekk ci kutubu sitta an ata ibnu yasaar maanaam muy waa madina muy imam bu màgg boobu nekkoon madina fa munawwara ala saakini afdalu wa wasalaam ci jamono taabii ah, Ataa ibnu Yasaar moom it mu génn àdduna 94e année boobu mooy at bi ñoom ñëpp di génnoon àdduna rahmatullah alal jamii abu muhammad dañ abu abdullah wala abu yasaar ataa ibnu yasaar al hilaali rahimahullah taala moom tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta annahu naka moom samia aba saidin samia dégg na aba saidin al xudri radiallahu taala mooy seydna saad Eh, ibnu Ubayd ibnu Salabata ibnu Ubayd ibnu Abjar mooy mooy Xudra eh, moo tax ñu naan ko al-Xudri radiyallahu taala anhu al-Xazraji al-Ansaari radiyallahu taala anhu eh, moom mi ngi gane àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk tamit ci muksiruuna yi maanaam mooy kii gën a tuuti la nag. li mu soloo ci muksiruuna yi 1170 xadis moom mooy musnadam imam al buxaari moom muslim dëppoo na ci 43 xadis imam al buxaari wéetoo ci 16 xadis imam muslim wéetoo ci 52 xadis ci xadis saydna abu said xudri radiallahu taala anhu annahu qaala nee na inna nabiya naka yenente bi eh, sallallahu alayhi wa sallama jalasa toog na zaata yawmin benn bés alal mimbar ci kaw mimbar bi waa jalas naa ñu nit toog xawla ko wër ko ñu nit ñu toog wër ko maanaam kon lii imam al-Bukhari daf koo indi indiwu ko ci ngir maanaam subhanallah mu mel ni daf lay wax ne la dafa am maanaam dañ leen benn xeer la jam na ñaari picc masalawu taxaw bi da lay wan ne farata la maanaam euh, dañ koo sopp sunna la nag bu dëgër waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ne toog na ci xutba imam imimbar bi ñu nit keroog bi ñu toogee dañoo toog wër ko maanaam mooy la mooy ne nu ñu mën a toogi mimbar bi bu bu nekkee nii ñun moom nu mën a toogi rek ñun dañuy toog jàkkaarloo ak moom maanaam loolu moom moo tax mooy ne ñun mun nuñ mën a toogi rek dañuy wëlbatiku jàkkaarloo ak imaam bi te loolu moom mooy na loolu la bëgg a leeral fii moo tax mu indi xadis bii fii nii leerale noonu waaye am na euh, buy euh, buntu boo xamante ne xadis boo xamante ne day tuddaale baatu àdduna ci jëmmi boppam ci wax bi loolu imaam al Euh, amul xadis bu mu ci am ci sartam loolu moom moo tax indiwu ko noonu ànd ak tuddaale baatu àjjuma bi waaye maanaam euh, maanaam xutba mu indi rek ci loo xamante ne day tegtale ne xutba bi la au moment xutba yi ñëpp ñoo bokk benn la maanaam xutba àjjuma xutba yett xutba yi yëpp imaam bi day taxaw xutba waaye naka noonu day taxaw day ah, mën na toog waaye nag taxaw gi mooy sunna waaye toog gi maanaam ngir wane ne du farata la wallahu alam xadis euh, bi tamit imam al buxaari yi dina ko indiwaat xadis numéro 1465 imam muslim indi na ko xadis numéro 1052 imam an nasaayi indi na ko xadis numéro 2581 imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis numéro 11157 ak 11865 euh, kon dañuy gis ne euh, asxaabu kutubu sita ñett yi ñoo ko indi mooy imam al buxaari imam muslim ak imam an nasaayi abu daawud imam tirmisi ak imam ibn maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al léegi nag ñu ñëw ci bunt boo xamante ne euh, ba tey day wax ay mbir yoo xamante ne ci xutba bi lay aju mu ne baabu man qaala fil xutbati ba'da sanaa amma ba'du maanaam baabu buntu man koo xamante ne qaala day wax fil xutbati ci xutba bi ba'da sanaa ginnaaw euh, bàkk ak kañ bi mooy euh, sant yàlla maanaam ginnaaw mu sant yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daal di wax amma baadu maanaam amma li nga xamante ne moom mooy euh, léeg-léeg wax ji nga xamante ne moom la wax naa waa baadu ak yooyu loolu baax na waaye nag du sunna lii sunna mooy baatu amma baadu loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy sunna boroom xam-xam yi nag wuutew nañu euh, ci kan moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko njëkk a wax maanaam baatu amma baadu ba bëri ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne ki ko njëkk Euh, maanaam euh, am na ñuy wax ne maanaam euh, yent yàlla daawuda alayhi salaam moo ko njëkk wax ah? comme fi nga xam te ne aatee naawal xog xikmata wa faslal xitaab fi alko bi alko ànd naan aatee naawal xikmata wa faslal xitaab eh, mooy xikma xarañ bi wa faslal xitaab ay li nga xam ne moom mooy tàqale ak jokkaloo maanaam mooy li nga xamante ne mooy wax ju firéeku te leer te tàq tey leeral maanaam mooy mu ne borom xam-xam maanaam ci mu fassiru ne ñu ne mooy amma baadu waaye loolu ñëwul moom at-Tabaraani solo na ko rahimahullahu taala mais ñëwul ci xadis bu wér amma ñenn ñi nee nañ déedéet Kaaba ibnu Looy moo ko njëkk wax muy maamu yeneen bi sallallahu alayhi wa moo njëkk jëfandikoo baatu amma baadu am na nañu wax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye li nga xamante ne moom mooy lu dul lu lu war a ëpp ñaar fukki saxaaba radiyallahu anhu wala lu ko ëpp wax nañu ne baatu amma baadu ki ko njëkk jëfandikoo mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa moom ci boppam maanaam moom ci boppam moo njëkk jëfandikoo baatu lan amma baadu maanaam loolu ah, mu ne rawaahu soloo na ko Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhu mooy Ikrima mawla moom mu jël sana Abdallah anin mu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ko indi maanaam xadis ci ginnaaw insha ne wa qaala Mahmoud te moom mooy ibnu Ghaylaan maanaam fii nii li tax mu indi waxul xaddasanaa Mahmoud euh, mooy ne ci muzaakara la ko solowee waaye dinañ gis ne ab imam abu nuaym rahimahullahu taala maanaam solo nako manam ci mu ne xaddathana mahmud ibn xaylaan manam ci mustakhraj bi maanaam imam bukhari ci bopam manam daf ko indi ni wa qaala maanaam mahmud amana li nga xamantene mom motax imam al bukhari rahimahullahu taala indee ko ni manam li tax mom moy ne daf ci djublu won di wax ne khutba bi du woon xutba yi aljuma waaye maanaaw khutba yi yep ñu ñu ru waye comme que du lool mu indi ko daal di wax ne qala mahmud te mom moy abu ahmad wala abu muhammad mahmud ibn gaylan rahimahullahu taala mom imam al bukhari ak mom muslim imaam tirmisi ak mom nasai ak mom ibnu maaja ñoom ñoo solo maam ko moom abu daawuda mom solo wul ay haditham comme niñ ko gisoon ñu ngi génn àdduna ci wéru koor 239e ane ginnaw gadda yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mom mun qala hadathana abu usama te moy imam wa kufa abu usama muhammad ibn usama ibn zayd al qurashi rahimahullahu taala moy imam wa kufa mom أيوب تامر كم جسر نجى جسر الحديث من كتب السنة قال حدثنا هشام ابن عروة ابن زبير ابن عوام رضي الله تعالى عنه جن أدنى جن أدنى بريتو سان أنا سوسان إنيم أنا سوسان إنيم أنا جن أدنى سان كارن كتب أنا جن أدنى ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث من كتب السنة أنه قال أخبرتني فاطمة مم بنت المنذر فاطمة بنت المنذر مم ويسخنا مم ااا جن أدنى 48 e ane ginnaw gadda yonent bi sa moko magé won 13 ans dégg nga mom ay mbokk lañ nag maanaam Fatimata bintul Munzir ibnu Zubair mom muy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair manam ay ay cousin lañ cousin cousin lañ voilà deng nga ibnu awam deng nga rahmatullah rahmatullah alayha mun ne am asma bint abi bakar moy soxna subax so zatul si taqayni sayyidatuna asma bint abi bakar الصديق رضي الله تعالى عنه أم عبد الله القرشية رضي الله تعالى تيمية نك دكون معك كم نكو جسون ما نتوق مو دم نك مدينة منورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مو سيدنا روح روح مزار مو يايو عبد الله بن الزبير بن العوام radiyallahu taala mooy ki njëkk a gane àdduna ci saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw gàddaay bi maanaam euh, at ginnaaw gàddaay gi àdduna euh, radiyallahu moom mi ngi génn àdduna euh, moom sayyidatu asma radiyallahu taala anha soixante treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi fekk mi ngi gane àdduna vingt-septième année ginnaaw gàddaay laataa gàddaay yonent bi sallallahu moom ko gudd fan la vingt 27 ans laataa gàddaay gi. Mhm. génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay gi ak bi mu génn àdduna mooy eh, dañ maanaam ay weer rek ginnaaw euh, eh, doomam ji Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu maanaam doom ji mooy bi ñu ko boomee mhm. eh, ginnaaw ga euh, ay weer la ci teg maanaam euh, lu war a toll ak weer mu daal di génn àdduna ngir bu tar nga moom la am ci loolu radiyallahu taala moom ñu ngi. Euh, dugg ci lislaam fekk fukk nit ak juróom-ñaar rek ñoo ko jiitu ci lislaam radiallahu anha maanaam euh, ci ñu njëkk dugg ci lislaam ci la bokk imam al maanaam solool nañ ko cinquante six xadis moom mooy musnadam imaam al buxaari ak imaam muslim dëppoo nañ ci cent quatorze xadis imaam al buxaari wéetoo na ci ñeenti xadis imaam muslim wéetoo ci ñeenti xadis xadis sayyidat asma radiallahu taala anha qaalat moom mu ne daxaltu dugg na ala aysata mooy ummul mu'miniina radiyallahu na anha soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wan naa su fekk sallu na ñu ngiy julli maanaam mooy biñu jàppee jant bi dégg nga nee na xultu ma ni macha allah naas waaw mbiru nit ñi macha allah nan mooy mbiru an naas nit ñi fa asharat moom mu daal di junj bi rasiha ci boppam ila sama ci asamaan maanaam mu daal di jox def nii asa xool ci kaw maanaam wane ne Euh, jàpp jant bi lañ jàpp ngir da koo fekkoon ci biir julli loolu day wane ne buy julli ñu laaj la benn mbir mën ngaa def ishaara maanaam benn geste buy tegtale dara waaye nag mu gàtt bañ a nekk lu bari mu nekk benn mbir kese loo xam ne moom ngay def waaye am na <laughs> ak yooyu loolu bokku ci maanaam wala ba nga gis ñoo xamante ne <laughs> maanaam mhm, Ah. maanaam loolu loolu day yàq julli julli day yàq wird tamit mhm, mhm. parce que loolu ay wax la day yàq wird de attention xam nga ñoom ñu naan booy wird doo wax leneen nga gis koo xamante ne dana jàpp na ne waxul mais wax na lu bari que ay umu mhm, am na ñoo xam ne moom moom moom stupéfait la ñuy def buñ ñu ko xamee parce que tellement que mosuñoo wér dati defuñu ko danañ yàlla xam dégg nga mu ne mu dégg ci boppam ci gis kéemtaanu yàlla fa ashaarat mu daal mu daal di tamit biiru asiyaa ci boppam ay maanaam wax ne naam waaw maanaam mu ne nii maanaam mooy yéegee bopp bi wàccewaat ko loolu mooy naam fa nee na xaalat nee na euh, mu ne fa ataala mu daal di guddal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jiddan lool maanaam mu guddal tari bi comme niñ ko gisee woon maanaam salaatul kusuuf xadis bi gisoon nañ ko ci kitaabul ilmi maanaam mu ne euh, bi nga xam ne xattaa mbete te ni mu daal di muy ëmb ma alxashu euh, ak yëgidi maanaam ma dem ba nga xam ne dama commencé perdre connaissance maanaam loolu tamit day wane ne ci biir julli nit ki bu ci nelawee tuuti wala mu perte ci connaissance bu fekkente ne terewu ko mën a taxaw wala terewu ko teg nekk ci mouvement bi loolu du yàq jullim wala ku ci somnole maanaam nelaw dañ dëjantu ku ci dëjantu ci biir julli gi loolu yàqul julli gi maanaam ngir ne loolu masinatul xadas la maanaam fu ñu mën a njortee ak toj la mais lu jëmmi toj kon bu fekkente ne foorul yenn foor yi du tax sa njàpp toj nee wa ilaa jan bi fekk mu nekk saa wet gi xirbatun maanaam ab butéel wala ab ab ab ab baat fii haa boo xam ne nekk na ca maa un ndox fa fa taxtuwaa nee ma daat koy ubbi fa jaaltu ma daal di nekk di asub bu di sotti min haa ci moom alaara si sama bopp bi mooy sotti sama bopp ndox fan sarafa mu ba mu noppee nag wëlbatiku rasulullah dawal yàlla li mm. sallallahu alayhi wa sallam waqat te fekk nag te jëllat feeñ na achams jant bi maanaam mooy bi yenti san salma jullee ba noppi fekk nag léegi jant bi nag gi génnaat na mm. maanaam jàpp gan ko jàpp bàyyi nañ ko moo tax loolu mooy ne da ngay da ngay di julli julli julli julli julli dégg nga ba maam moo tax tari bi di gudd mm. nee fa xataba mu daal di xutba annaasa nit ñi maanaam jokkaarlu wax ak nit mu ne wa hamidallah mu daal di sant yàlla bi maa ci li nga xam ne woo moom ah aluhu mu ne amma baadu gannaaw loolu amma na raxamaa mën am na ñu waaye li gën a mooy baatu amma baadu maanaam lañ koy wax xaalat mu ne ah, nee na wala xata muy coow niswatun ay jigéen minal ansaari ci ji ci wàll ansaari ah nee na fan ka fàttu ma daal di junj ilayhinna ci ci ñoom mu wëlbatiku ci ñoom li askuna li askutahunna ngir ma li uskuta li usakkitahunna ngir ma noppiloo leen mm-hmm. mm, noppi leen fa qultu ma wax li Aïcha sayyidat Aïcha radiyallahu anha ne ko maa xaala lu mu wax waay maanaam ngir ne moom mm-hmm. bi mu demee pour di wax ak ñooñu naan leen kaay eh, eh, noppi leen waaye mais yonent saa sallam am na lu mu wax mu nee na nag walaaj sayyidat Aïcha radiyallahu anha ana lan la wax qaalat mu ne qaala nee na maa min amul benn mbir lam akun boo xam ne nekkuma woon ra'aytuhu di ko gis uriituhu boog ñu di ma ko wan illaa lu dul xat dëgg dëgg ra'aytuhu gis naa ko min maqaam yi ci sama taxawaay haaga bi amul mbir mu am boo xamante ne mosuma ko woon gis avant wanuñu ma ko woon lu dul tey ci sama taxawaay bi lépp xatta mbete aljannata aljanna wan naar ak safara maanaam ba ci suñu jotaay bii nii yenent bi xamul na ko salaa sallam yenent bi amul lu ko réer ci ci mboolem lii xew sallallahu alayhi wa sallam ba biir àjjana la fay xew ak safara loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ku jàpp ne dafa am ay limitation ci xam-xamam loolu mooy xamoo ko en fait donc réer yi dëgg sallallahu alayhi wa sallam wa innahu te lu wér bu wóor mooy xat dëgg-dëgg wax ye wax yu nañ ilayya jëm ci man annakum naka yéen tuftanuuna def na leen a nattu fiil qubuur yi ci bàmmeel bi misla kemuk aw wala boo xaribalu jege fitnata fitnay almasix dajjaal masixu dajjaal loolu mooy wane fitnatu masiixu dajjaal moo tax ku naan masiixu dajjaal ñëw na mooy xamagul lu wér lu ni muy wax parce que masiixu dajjaal su ñëwee nee la bàmmeel bi fitna gi la gi la ciy fekk gi la gi nattu gi neen ciy nattu natt googu day nuroo wala ba mu jege maanaam même bu yéegul niveau fitna masiixu dajjal dana ko jege fitna bu toll noonu sëñ bi ku ku ku moo tax fekkee ko moom musiba bu rëy rëy lu dul ne comme ni yeneen wax sallallahu alayhi juróom-ñaari aaya yu njëkk ci sóoratul Kahf fi dana danañ ko euh, nee euh, nee na yu taa def na dikkee ahadukum kenn ci yéen fa yuqaalu lahu bu ko defee ñu ne ko maa ilmuka ana lan nga xam bi haada rajuli ci waa ji muy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit day tegtale ne maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam day ci bàmmeel yépp amul kuy dee ko ci bàmmeel lu dul dinañ ko wan yenent bi sallallahu alayhi wa ne ko lan moo nga xalaat ci kii loolu lu muy tegtale mooy bu junni nit deewandoowee ci ay gox yu wuute yenent bi sallallahu alayhi wa danañ ko fa teg ci dina dina fa feeñ ci junni place yu wouté en même temps lolu doyna na ci leeral ci né nit ñi mën nañuy gisandoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci bërëb yu wouté té ñi nekk ci bàmmeel bi diko giss ak ñun ñu nekk fi diko giss amul différence au moment où mom ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi comme faddu na ci suñu àdduna bi bokku na ci rey ñu té te leen rek mo mëna a nekk mooy ne jinne yi ñun mëna ñu leena giss te ñoom ci xay bu lañ bokk moom dañoo fàdd ci suñu àdduna ainsi de suite ak malaaka yi comme ni mu soxee ci lu dul benn du ñaar ci ay xadiis yi ne malaaka yi dañ leen di gis voilà sayyidat Maryam alayhi malaaka yi ne ko yow sayyidna Muaz ki eh, naka Imran ibn Husayn radiyallahu anhu mi ngi noonu ak ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu jame wa xadiisu Jibril alayhi salaam mm-hmm. mais surtout ñi nga xamante ne ginnaaw yonent bi la mbir mi xew sallallahu alayhi wa sallam muy ku mel ne Seydina Omar ibn Hassan radiyallahu anhu ainsi de suite waaye dégg nga te loolu mooy wane ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mëneef na koo gis ginnaaw bi mu bi mu làqoo nee na fa yaqulu nee na nee na bu fekkee ne fa amal mu'min daal aji gëm gi aw wala boo mu ne al muuqin aji wóolu gi nee na shakka Hicham Hicham moom moo sikki sàkk fa yaqulu mu ne huwa kii mooy rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee jaa ana moom dikkee nañu bil bayyinaati ci njub ci ci ci ci lu leer naññ wa bil huda ak njub gi du fa aman naa moo tax gëm nañ ko gëm nañ wa ajab naa te wuyu nañ wa tabaa naa topp nañ wa saddaq naa te dëggal nañ maanaam lii subhaanallah lii mooy ne lii moo war a nekk sacerdoce bi ci li nga xamantene lañ war nek suba ngoon guddi ak bëccëg gëm nañu yent yalla Muhammad sallallahu Alaihi wasallam te mu leer ne limu indi loolu leer na nañ amul lu ci leunt njub gu xot ci la def te it dañ ko wara a gëm nangu ko wuyu ko mais top ko ba pare deggal ko ci mbolam mbir yi fa yaqulu bu fa yuqalu bu ko defé law ñu wax la woo ñeel ko nam nelawal salihan di ku sell xat deug deug loolu moy wone ne manam nit ki ak cell teem du denc mom bu génnee aduna xat dëgg-dëgg naa xamoon dëgg-dëgg nekkoon nañoo naa alam di xam in kunta nekk yow dëgg-dëgg yow la tu'min la la la tu'minu gëmoon nga bii ci moom xam nañ ko sax dëgg nga maanaam euh, waaye natt bi foog mu am wa amal mu munaafiq ndaal naa feq bi nag aw wala bo qaala al murtaab aji sikki sàkk gi mu ne shakk sikki sàkk na hicham hicham moo sikki sàkk ci baat bi ban la fa yuqaalu dañuy wax loo waññal ko maa ilmuka lan nga xa lan nga xam bi hada rajul ci bi la waay fa yaqul bu ko defee mu ne laa adri xamuma xamuma sameetu déggul naa daal annaasa nit ñi yaqulu ñu ñu naan see ñuy wax shay am benn mbir faqultu ma nit waxoon naa gars yi bu événement yi xewee wala yooyu daal wala ñuy wax nii ba yegsi ci moom man daal am na luñ ñu daan wax mais man daan naa ko wax ah, mais fàtte naa ko wax dégg maa fekk bi loolu koy def yàlla nañu yàlla sàmm. moo tax ku dëgguwul yàlla li muy xool ci yow mooy sa dëggu est-ce que dëggu nga ci sa biir. sinon rek loolu moom lañ lay àttee ëllëg yowmal euh, maanaam ëllëg ci sa biir bàmmeel ak yowmal qiyaama qaala Hicham nee na al imaam Hicham euh, Hicham ibn Urwa ibn Zubayr maanaam mu ne euh, falaxat dëgg-dëgg xaalat wax na lii ñeel ma Fatima maanaam mooy soxnaam fa awaytuhu ma takk ko. xayra lu dul annaha naka moom zakarat tudd na maa yu xallisu loo xamante ne dana taral alayhi ci moom maanaam loo xamante ne daal maanaam da da am na lu ma jàpp mais daal li mu tudd tudd na loo xamante ne maanaam day tar ci kaw waajoodu voilà dégg nga xadis bi euh, imaam al Buxaari yi indi woon na ko 86 184 745 dana ko indiwaat 1053 1061